ba mu dikkee wax ko borom daaru mun ne ko déedéet koso sëñ Tuubaa moo ma ko digal ma sanc ko musuma faa liggéey lu ma ko yotut lu ma fa mos a liggéey lu bari bari ak lu néew néew moom laa ko yot te mu naqari lool ma bëggoon nga demal ma fa teewal yoral ma dëkk ba mu ne ko man day lu mu naqari naqari soo ma ñaanalee danaa fa dem mu ne ko ñaan gi day li ma la ciy digal mooy soo demee nga sax ci jaamu yàlla ak liggéey ndax moo mahmoodan boo jaamuwul yàlla ba dem yow xiyam danga nga mere ku la deful dara ak ku la mën di jur liggéey boo ko defut xanaa wéy ci liñ ñu lay jox rek doo am dara ndax dañuy mujj sax ñu naan liñ koy jox fu mu jaar kon na fa sax ci jaamu yàlla ak liggéey ba mu ñëwee it mu daal di sax ca loola nekk fi boole ci nag leneen loo xam ne moom moo ko sàkkul boppam jàngale di jàngale alxuraan di jàngale xam-xam hmm. boole kook taalibe goo xam ne nag jaaxal na àddina bépp ci borom daaru la tàmbali woon taalibe ga lu mu bay fii moom la ko yót lu mu lijjanti lu mu tukki bu ko amee moom la koy jox ndax di sàkku eh, bëgg a doonub taalibe rek ne ko ab taalibe rek laa bëgg a doon daana wax ne bu ñu na doonalee ngor ak diine ngor lay jël ndax nee na ku amul ngor doo am diine loolu daal wax ku fi nekk it dalaa sant nga liggéey liggéeyal ma wala nga liggéeyal sa bopp néew ma la nag doo taxawaalu ndax magum jëmm kenn du ko ne doo taxawaalu waaye sañ naa ne la doo taxawaaloo fi man ci loolu la nekk nag sax ci bu sëñ Fallu soxlaa woo ko bu sëñ daa Balla soxlaa woo ko kilifa yi ko soxla woo ko sëñ Modou Moustapha dafa ne damaa jaaxle ci dama dama koo yéem ndax bi ma ko xamee ba tey musuma nuyu mukk te bàyyiwu ci sama loxo dara sëñ Fallou ne dama koo yéem ndax xam-xam bi ak yar bi ak taalibi bi laa xamul nuñ koy boolee waaw mu nu jóge fii ànd ak moom man ak moom ak bajaan faam mu dem ci sëñ Cheikh ma sëñ Cheikh téye ko am na nañ fa juróomi fan yoo xam ne bis bu xëyee bu nuyoo sëñ Cheikh bàyyi na ci loxoom dara bi mu jógee génn nag sëñ Cheikh ne gees Saliou ambassadeur ne ko man day defoon naa ne xam nga day ay ci waa Darou Moussi ne ko defoon naa ne ku mel ni amul Darou Moussi nun de mën na noo joxe suñu yetti dan yëpp tañ jox nu ko waaw lii la sëriñ Cheikh wax waaye juróom-ñetti fan yeen faam yëpp juróomi fan yeen faam yëpp loolu lay def noonu la demee woon ak sëñ Abdou Lahad noonu la demee woon ak sëñ Basiru bu sëñ Abdou sëñ Basiru yebal si fi Abdou Akim ak Alaaji ak Isaaxa moo leen jàngal sëñ Soy bu yebal si fi Cheikh Say Jaxate sëñ Abdou Lahad yebal fi Abdou Samad ak Sidi ak Moustapha fii la ñu sëñ Fallu nag li mu ko jox ci ay taalibe ku kilifa guñ ko jox rek sëñ Abdou jox na ko ñaari doomam fii la leen indi fii la ñu jàngee kër sëñ moo Balla yëpp fii lañ jànge bu bu doomi Ceerno yëpp moo leen jàngal la ko tàmbalee ci sëñ Absatu sëñ Abbas Basiru Anta Ñang ñoom ñëpp fii la ñu jàngee sëñ Moustapha May ñoom ñëpp fii lañ jàngee moo leen jàngal yar leen dama laa wax ne sëñ Mahamadan jàngale bi baax na yaa waaye yar bi mu lay yar moo gën jàng mi ndax da wax ne xam-xam bi day baax na waaye nag mënees na la koo bañ a laaj waaye yar bi nag foo toll moom ñu ngi koy xool ciw ba xam yaru nga am déet ndax ab yar moom boo nuyoo rek cib jotaay ñu daan di xam kii ku yar la wala ku yaradiku la loolu la moo tax mu ne yar bi de moom foo toll danañ ko xool ci yow soo ko amee dañ laaj ku ko yar xam bi nag mën naa am mën naa am nga gis ku la ko laaj mën naa am nga gis ku la waaw loolu la moo tax yar bi lay jëkk a def ci yow ba nga amu yar mu def ci yow ak taalibe ba nga amuk taalibe léegi laa koy nettali danoo dikk kër sëñ Abdou mu toog ci romb jaan gi bi mu bëggee soonu ma di ngegenaay li mu ne ma tegal ci kaw soonu ci ngegenaay li ak toog ci kow lal bi ñooyam nga xam ne Amidou Diop rahmatulahi moo taxañ kaalaam jox ko mu soonu ci loola jafe na lool waaw lépp lu ko sëñ Fallou Massane sant mu dib liggéey du fa jóge mu te jeexul dëkk bii it mas na leen a woo ñoom ñëpp ñu daje góor ak jigéen mu ne leen ku ne day layoog sa mbooloo. mu bëgg laa yéen bala noo dem yow mal xam sama ñaq wi day mënuma cee naan ba man di mënuma cee sangu kon mënuma cee bëgg kenn wala ma sang ci kenn te lii ma yàlla digal moom la leen digal yàlla nag yaari yoon la sàkk def ca yaari kër yoon wu ci nekk ku ca awte dëppoo da nga dem ci kër ma bëgg ngeen jaamu ji yàlla te liggéey te yéeneen te jàmm te lu ci waay yéene bopp mu yéene ko morom tey dimbalante ngir yàlla man nag damay layoo yéen ba la nooy dem yomal xam ndax kenn ko ne da nga laaj sa keroo keroog dëkk bépp la woolu góor ak jigéen ci loolu it la nekkoon waaw daane nag sëriñ Tuubaa mii nañ ko jàpp ak suñ fukki loxo nit boo ko def bëggee def aw lay ëllëg waroo seet ci moom dara waaw la wax waaw Mbàkke kon dafa mel ni ah, sëñ Mamadou Mbomu di doomi borom Daaru Mawti ci niñ dégg ñu ngi ko waxe daa mel ni képp koo xamante ni magul rek moom ci wër kër borom daaru mooy jàngal na la képp ko xam ne fekke ko mag rek jàngal na ko xanaa. mboolem ñi fi mujj ñëpp te di ay gone moo leen jàngal sëriñ am satoog sëñ Basiroo sëñ Abbas ak Basiroo Anta Ñang ak Basiroo Asuloo Moustapha Absa Moustapha May du Bara Khourédia euh, son bu Mbakke ñoom ñëpp Abdou Samad Bousso ñoom ñëpp Abdou Samad bi doon jiite jàng jumaa ji ñoom ñëpp moo leen jàngal dégg nga woykat ba naa ko euh, am di Bousso ki seexi Abdou Samadi yaa leen xamal musulaa xamal ko xamadi am di mii di yor barab bi waaw <laughs> ci ci ci moom la jaar waaw dégg nga mun naa ko it ba tey euh, na am satu Cheikh Basiru Abbas magam alim la tey Nasiru waaw sëñ Mor May xaw ma xam nga comme de xam naa da nga ko dégg moo ko jàngal waaw dégg nga bi mu yax sëñ Moustapha May Cheikh Moustapha May muuna moom Cheikh Bamba yaa ko duyal duyal rakam alhaaji Cheikh Mbacke doole baaja yaa di waaja kooku man daan na ko yaa duyal li rakkam ja maam Mor moom Cheikh Momar soxna ma moomoon Mbàkke <laughs> loolu la ko ñooñu la ko noonu la ko toppee ba ñu àgg ñoom ñépp baraa na kuy féey te yaa tanqal tànqal kasaaka seexu naa loo ndax li xam-xam bi bari bari weesuwul fii waaw waaw waaw fii rek <laughs> fii noo bokkoon ben néeg bu nekk maag moom ak Moustapha am sëñ Baara waaw ñoom ñëpp fii la ñu nekkoon moo leen yar moo leen jàngal donc yi da leen di wax fu julli jote bàyyi leen li ngeen di def te jàpp te julli soo ko dellu ci waar wi ku ko mënul bàyyil bu koor gi di kee liggéey bi met dañuy wax ku mën a boole woor ak liggéey na nga ko boole ku ko mënut a boole nanga bàyyi lëggéey bi te woor fii nag ci la tegoon tànkam te loole sariya boobee la muy diis diis yàqulu ko dara ci taalibe bi taalibe gi la fab teg ci kanamam waaw. mu mel ni Serigne Mountakha Mbacké yàlla na ko suñu borom yàggal nga xamante ni mooy xalifa général de Mouride. ku mel ni Serigne Bachirou moom fonkoon na sëñ Mahmoudan lool ba joxoon ko ak njabootam ci li ñuy nettali ci biir dëkk bi ndax moom ci la bokkoon wala ñeneen ci ay doomam la woon. sëñ Mountakha bokku ci woon Alaaji ki sës si sëñ Mountakha moo ci bokkoon ak Abdul Hakim bu Nasru ak Isaaxa mi nekkoon ambassadeur waaw moo nekk Njaareem Isaaxa waaw sëñ Fallou yot ko doomi sëñ moor mbakke doj ñaar Seex doj ak ki ñuy wax docteur Khadim fii la ñuy ñoom ñoom ñëpp soog a soog dem bitim réew dellu ko yót ñaari doomi sëñ Abdou ja kii doon xalifam sëñ Abdou ja tey waaw muy maam Balla ak sëñ Mbakke fii fii sëñ Fallou ko ko yót fii dellu ko yót Thierno Mbakke gelongal keroog ba mu ko yót noo ànd da ko ne sëñ sëñ sëñ Omar Mbakke dafa ma tudde doom jum tudde borom daal dafa ma koo jox te nee na ma damaa bëgg mu mokkal alxuraan yow nag yaa ma ci doy muy Thierno Mbakke gelongal mu ñu fab ko indi fii fi la ma fekk ndax man 47 laa fi ñëw boobaak léegi jóge wu daa mel ni Mbàkke ci histoire it dañuy nettali sëñ Mahmoudan mi ngi fi ñëw 1942 te daa mel ni ci histoire borom Daaru Muxti moom 43 la fi bàyyi ko ndax 40 la fi ñëw. 40 39 euh, la jógee Mirina sëñ bi ne ko jàng xalil la mu ne ko mu ne ko dellul jàngi xalil mu dem jàngi xalil bi xalil waagee mu dikk ne ko damaa bëgg a sanc ba Njaañ mu ne ko déedéet ko sa sëñ tubaa ma ko digal te lu ma fa mas a liggéey sëñ Touba ko yóbbu ma bëgg nga dem yoral ma ko. mettiwaay ba nag daa tax ku ma ko jox rek nga daw mu ne ko ñaanal ma man de boo ma ñaanalee dana fa toog muy muy fin 39 début 40. baax na kon Mbacke ñoo ngi lay ñaanal bu baax suñu borom. liggéey bi ci jumaa ji it euh, dana ci sedd lool ndax moo daan jiite jàkka ji moo ko daan jiite booba aw sàkketu ga tax la ba yàgg mu wut néegum ñax samp fa ndax taw bi mooy jiite fajar ba jiite takkusaan ak timis ak gee daa daan wax sëñ am sëtu ñoom ku manqué kabaru fajar bi kabaru bu aramal bi ku ko manqué da nga da nga fay juróomi dërëm waaw ndax booba nelaw yi dafa neex te dëkk bi neexut te ndox amut daa daan wax itam bu kenn dugg ci jàkkee te jàppu waaw moo koy jiite fajar jiite ko tisbar takkusaan timis gee safa witar soog génn ñu soog a reer loolu la daan def jërëjëf Mbacke kon ñun ñi nga xamante ni suñ borom dañoo booleeg sëñ Mahamadan ñuy ay ndaw yoo xamante ni ah, dañoo war a doon royukaay ci jëmm ju tedd jooju nga xamante ni sariha lu ne la ko jaraloon nga xam ni daaw dugg ci jàkka ji te jàppoo kon nun ndaw ñi lan nga nuy soññ ñu gën a fonkaat diine ak jàkka ji nga xamante ni def nañ ko ci biir dëkk bi ñu fas yéene fee dundal bëgguk sëriñ dan muy jaamu yàlla googe looy soññ ndaw ñooñ li may soññ ndaw yi daal ñu sax ci ndigal sax ci liggéey ak jaamu yàlla sax ci jàkka ji itam ñu noddu rek nga toog ci sa kër daana wax ne sëñ Mahmoudan daana wax ne. déggu noggu dégg dégg ak noddu toog ne ca la caay caay tàmbalee <laughs> loolu da ko daan wax ne dégg ak noddu toog de ca la caay caay tàmbalee moom nga xam ne boo déggee noddu gi da nga war a jóg waa ji wala nga jóg def ra waaye jéggi noddu gi ba noppi toog nee na ma ci caay caay tàmbalee kon nag li ñu leen di diggal mooy euh, mag ak ndaw a ci bokk yam lii mu sant mag ñi la sant ndaw ñi maase leen ci fonk jàkk ji te kuy dem na nga jàpp te jàkk ji li nga ci am lépp du ëpp fukki minute ah? bu fukki minit yi jeexee nga dem doxi say soxla te yàlla nee na ma woon kat yàlla xamul julli gu baax ak gu bon xam nga lu mu xam ku nangoo julli ne ko nangu la xam <laughs> nga ab jaam bu xasee nangu rek sa nga bëgg rëm na ko waaw waaye bu dee gantoo ko bu dee gàntoo ko nangu it ah kooku day jërul kii ndax bu bee mu def lii bu bee mu def laa kon na ñëpp maase ci sax ci jàkka ji di julli ji tey ñaan li ngeen di wut lépp jàkka jee ci gën a gaaw <coughs> julli gee ci gën a gaaw ndax boo dee jàpp di julli sa wërsëg moom day yokku dara du ko mën a téye te it boo jàppee julli bàggale julli ci jàkka ji tàllal say loxo ñaan sa borom li nga bëgg ci àdduna dana la ko defal ginnaaw àllaaxira gën a jafe te boo ko ñaanee mu defal la ko kon kay àdduna yi waxaale wuñu ko ndax poñe rek a fi nekk te li mu yor ci àdduna moom doyewu ko dara da koy joxe rek te jox ko malaaka yi nit ñi rek la koy jox te ci nit ñi ngeen bokk ah te dafa fonk jullit yi te yërëm leen daana wax ne boo boo yéenee lu baax mu bind ko benn yo nga jëf ko mu dolli ci juróom-ñeent muy fukk mu dencal la ko ba ba saa taxaw dara du ko man a yàq soo yéenee lu bon du ko bind nga jëf ko mu ne malaaka mi négal ba xam dana tuubam déet su tuubee mu far du ko bind su tuubul mu bind ko benn yoon mu ne noonu ak seex kenn du layoog yàlla kenn ku ne yaay layoog sa bopp say fukk fukk ak say benn benn boo sàgganee ba say benn benn ëpp yaa tooñ sa bopp ah lii la daan wax ndax nee na boo yéenee lu baax mu bind benn nga jëf ko mu def ci juróom-ñeent muy fukk nga yéene lu bon mu bañ koo bind nga jëf ko mu ne malaaka mi muñal ko ñaari waxtu nga muñ ñaari waxtu soo ko tuub mu soog ko bind benn yoon soo ko tuubee ba ba ngay sukkuraat boo ko tuubee ñu far ko te du feeñ ci say dossier ëllëg bu ñu la yàtte waaw kon nag ku sàggan ba say benn benn ëpp fukk yaa ko teg sa bopp waaw loolu la wax kon nan maase nun ñëpp ci euh, li nu sama borom digal nu fas ko yéenee di def waaw def gi rek moo nu war la ca san ko bàyyeeg moom te kat wërsëg yii ngeen di xëccoo ko daw lépp kat yàlla sëddale na ko bàggale ndax balaa doom jee judd rek bu ko malaaka mi awee man yu mi ne ko ma sos ci doom mu ne ko sos ci doom na am wërsëg na ñàkk wërsëg na texe na texe di na gudd fan na gàttu fan mu bind ko ci man yu mi soog koo bay doom ji sosu waaw kër kër jéeg yooyu yëpp jaru waaw waaw ah. ndax foo man di nekk mal euh, foo man nekk Mikaayil moom dañ koy yebal ci na bu fajaree na nga yót kii lii bu yor yor na nga ko ko yót bu takkusaane na nga yót diw bu ngoonee na nga yót diw balaa tëdd na nga ko jox nangam loolu kenn mënu ci yonent bi dafa bëgg dafa amoon soxna su su muy bëgg a jël sawdatu sawdatu ne ko man de damay mag mu ne ko bu ma jaayug mag ndax maa la mag mu ne ko euh, mu ne ko damaa am njaboot mu ne ko mag yow ak njaboot ñëpp yàlla na yor suñu yónneewul ci njaboot mu ne ko ah waaye damaa fiir nag mu ne ko naa la ñaanal firange bi dañ lii nga xam ne kooko da ko ne yonent bi da ko ne man ak yow ak njaboot gi yàllaa nu yor yoonu kenn wu ci sëñ la daan di ko okaas ne li ngi yéen a ngi ci yàlla yoral eh, rek di kër kër yi bàyyi li ngeen yoral seen bopp yàlla dana seen biir yeeg seen biir njaboot yi maa ko yor seen biir bàmmeel na ngeen yor góorgóorlu leen ci waaye dara dañuy bu ñu jógee rek dañuy kër kër yi ci marché baag fu ne rek di daw ngir ngir suñ biiri bopp yeeg suñ biiri eh, njaboot gi te fekk na yàlla moom moo nu yorul loolu waaw ku xam loolu nag da nga mën a noppalu waaw waaw jërëjëf Mbacke kon mbokk yi nga xamante ni ñoo ngi seetaan ñoo ngi fii ci kanamu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Modou Habib mu feggoog ak njabootam ah, ki nga xamante ni moo ci nekk Serigne Mahmoudan Mbacke feggoog Serigne Modou Habib ak ah, Serigne Moustapha May Mbacke sunu Serigne di suñu rek di ñaanal Serigne bi bu baax a baax suñu borom yokk aw fanam te yàggal nu ci kanamam bu baax a baax a baax ba li mu fas yéene liggéeyal Serigne Modou Habib lépp mu def ko nim ko bëggee te ànd koo taalibe yëpp nag ko ñëpp ñaan ndax moom kenn la koo xamante ni sagub uh, kër Serigne dan la mooy kilifa kër Serigne dan kon nañ ko ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom yàggal ko ci suñu kanam lool kon Serigne bi kàddu yu ñuy tëjee rek nga defal nu ñaan su ko defee ñu jéem a waajalaat bisub Serigne dan bi. di ñaanal sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér te mu jiite li mu ci lépp yàlla na ko àggale